et parlant justement de Karim Sall Karim Wade mais Karim Wade deful boppam français adduna ak mbiru suñu borom moo ko def français yaayam française donc bu juddee rek am na nationalité française mhm. baayam kenn mënul weddi ni baayam du sénégalais Ablaye Wade moo gën a sénégalais képp kuy sénégalais mhm. ñépp xam jaar-jaaram mhm. mais bu demee ba ni renoncé na ci nationalité française sénégalaise mais du ñun ñoo koy àtte ñun du ñu conseil constitutionnel quand même conseil constitutionnel moo war a àddu ci loolu parce que moom lépp lu mu bëgg a am pour leeral décision waaw wala déet am na ko mhm. mais du ñun ñooy toog opposition naan kii nationalité kii nationalité Karim dana bokk Khalifa dana bokk du mais ça veut dire quoi qu'est-ce que nous voulons ah, donc même li ñuy tam ñenn ñi di wax ba xel yi ci tey ñu naan am nekk ci opposition bi candidat wu pouvoir bi lañu nit ñaa mais day firndeel loolu. est-ce que véritablement opposition lañu. Mm-hmm. donc opposition bi war na seetaat boppam. et dama gis ni ñun ñu ngi bëgg yàgg ci élection li parti yi fi ne woon démb ak bërki démb ci jamono Abdoulaye Bathily bariwuñu woon mais déggoo bi ñu amoon seen biir bu ñuy dem ci ay élection mm-hmm. mm-hmm. bu ñu def ay revue gisuma ko léegi. et pourtant du ñuy avancer di jëm kanam. parce que ku nekk sa intérêt ku nekk sa intérêt ngay xool.